niñ koy defee ak yeen seen émission bi nga xam si di njariñu alxuraan ah ñu ngi len ci nuyuwaat bu baax di len ci di rafetlu bu baax and bi ngeen di ag ak ñun ñewat nañ ak yeen ci seen ñaarelu émission njariñ ak euh di ci and ak Serigne mam Ousmane Diop mi nga xam ne euh mo ci and ak ñun damay amane mbekté di ko dalalati ci Almunawir meja, Serigne bi ma ngi lay nuyu di amane mbekté di la baye nga nuyoo ak ñuy sétane ci Almunawir media Bismillahirrahmanirrahim. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di bég lool ci jotaay bi ñu amaat ak almunawir média bokk ak sunu mbokk Seydina Ali di it ñaan yàlla képp ku ñuy suivre yal yàlla faj sa ajo njàqare boo am yàlla na ko yàlla teggi di it profito ci almunawir média di jaale sunu bopp di jaale sunu bopp di jaale sunu mbokk di jaale nag àddina bi yëpp mais surtout sunu mbokk muriti muy góor gu baax te sell muy sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke lu diis la ñu ngi koy jaale ñëpp nag di ko ñaanal yàlla fa mu jëm yàlla na ko dàqal fii fuuf yal na ko yàlla boole ci jaam yi mu gërëm te am nañ ci yaakaar muy mag mu baax di nitu yàlla piir am na nag mbokk yu bari ndeysaan yuy jàmmat góor gi ma ne leen nitu yàlla du dem day làqu mooy dañ ñuy jege te léegi sax lañ ñuy gën a jege su ko defee nag lépp loo xam ni bay woon na ko fi ñun ñëpp nañu taxaw sàmm ko man li ma gën a retenir ci moom benn image kese la ak benn kàddu image bi kim ko bokkal la bokkal kàddu gi muy Serigne Abdou Aziz Al Amin ñoom ñaar seen image ba tey dama ko jàpp seen kàddu dama ko jàpp lan mooy image bi mooy ñoom ñaar bi ñuy saafonte ku nekk téye sa loxo moroom loolu mooy lan muy ñun njaboot gi muy ñun taalibe tiijaan yi ak ñun mbokk murit ñun ñëpp nañu booloo topp sunu kilifa yi liñ ñu digal ñu def ko sunu intérêt la intere réew mi la kaddu gi ma jàpp mooy bi ñu sëriñ Abdou Aziz Al Amin di nettali bi ko sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke woowee téléphone nekk Abdou sa mag la dama bëgg bés ni ki tey ñaari korité jeex ñaari tabaski jeex te mag yow mën nañ ko def sans protocole mu ne ko amul benn problème loo wax rek loolu lañuy def te boobu ba tey gis nañ ni benn tabaski moo am benn korité moo am kon nag ñi fi yàlla tegandi ñu ngi leen di ñaan ñun ginnaaw bi ñu nekkee seen ginnaaw di dox ci seen digal ñun ñëpp nañ def itte ba loolu wéy ku ko ci njëkk dog nag ci ñun njaboot gi dog nga ak sa sëriñ kon nañu fexe loolu ñu liggéey ñun ñu sàmm ko dox ko loolu daal mooy li nga xam ni dinañ bëgg nañ ko ubbee tey waxtaan wi muy njëriñu alxuraan ñu bëgg ko am ci semaine bu nekk ngir wane ne alxuraan du du waxu kese du message yu kese mais message la bu am ay code code yi yàlla am ñu mu dogal ñu mën ko décoder bu ñu dégloo incha allah topp ko ci kattanu yàlla gannaaw nag ngeen xam ne kii wax taalibe dong la kuy sab kuy wut xam-xam te mokkalagul mais damay jéem yàlla yàlla dola dolli sutura Seydina Ali ah jërëjëf euh, sëriñ maam Ousmane ci nuyoo yi am na solo ni nga ko waxee tamit ci kilifa googu di sëriñ Sidi Mokhtar ñu ngi profité di ko jaal mbokk yëpp euh, njariñu alxuraan la ñu wax fii ci almunawir média ñu ciy ànd ak sëriñ maam Ousmane ni mu ko waxee nee na bëri na loo xam ne si xam ngeen ni mi ngi ci alxuraan mais ay code la euh, tey sax incha allah xam naa ci loolu la ñuy dugg muy secret yi nga xam ne si mi ngi ci biir alxuraan alxuraan li nga xam si mën na ko ak maanaam li nga xam si mën na ko te nit war a xam nan lay def ba jariñoo ko sëñ Maam Ousmane tey euh, ni nga ko waxee rek ci code yooyu laa bëgg ñu dugg ko ñu dugg ci Euh, manam toj ko ba nit ñi xam li nga xam si mom mo aju ci bir alquran tay secret yi nga xam si mi ngi ci ci bir alquran. suma la ko doon laaj serigne bi euh, yan secret lañ mëna fekk ci bir alquran waaw bala ma ci tontu man niwu sama serigne di ziar di ñaanal yalla guddu fan ak wér muy serigne mbay si abdu yalla ko yalla may guddu fan ak wér di rafetlu li sunu serigne def muy serigne mbay si Mansour. def na geste bu rafet muy jóge Tiwaawan dem ba Touba wane mbokkoom loolu am na solo ñun ñëpp nag nañ ci nañ ci roy lu am solo la kilifa yi nag léegi wan nañ ñu yoon bi léegi nag na taalibe yi topp yoon woowu loolu buñ ci jógee li ma laaj dafa yaat ba mu ëpp ndax yàlla dafa am ñent yu mu wax ci alxuraan mu ne ki xam du yem ak mukk ak ki xamul loolu muy benn beneen bi mu ne kulli zi ilmin alimin am na ñoo xam ni seen xam-xam am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu jeexee te ñi ay jaamam lañu beneen bi mu wax ni képp ku ragal yàlla maa la garantie ne dinaa la jox xam-xam muy kon yàlla ba tey am na ñu muy jàngal alxuraan la wax waxuma sax xadis alxuraan laa wax yàlla moo wax ci alxuraan ittaqullah wa yuallimuhu alkitab wal xikma képp koo xam ni yaa ngi fexe nga ba ragal ma man yàlla dinaa la jox xam-xam boo xam ni day ànd ak xikma ànd ak sagesse kon yàlla dina jàngale ci kaw nga ragal ko mais Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum wax ne ragal yàlla am na lu ko ëpp doole te mooy farata muy takkook yàlla takkook yàlla lu muy jur mooy koo xam ne sax bu soxla duggee ci noppam yàlla mën na koo faj boo seralee xolam yàlla mën na koo faj loolu nag li koy indi mooy ci jaamu yàlla ba mu mel ni yàq moom a nekk ñeenteel bi muy sood wal quraan zi zikri yàlla di ñu xamal ni alxuraan lépp ngi ci biir euh, euh, parabole la boo xam ni il faut nga am code pour mën a connecté wu ci chaîne bi xam nga tey ñu nekk gis nañ chaîne yi xew pour nga mën ci am il faut nga branché tey Al Mounawir Média pour nga suivre ko foog nga am lien bi pour nga mën ko suivre wa almunawir bo point com ci almunawirmedia.com point com da ngay gis émission yépp non rek la mel su ko défé ñu xamné nak sirru yoyu liñ tuddé sirru ci arab ñoy fajj soxla yi yan ya-, yan yan soxla la mëna fajj ben dal daal wóor na ma ne moom mënu ko fajj muy baña dé alquran lu nekk man na ko ba mu des fexe ba nit du dee maanaam ci wàllu madda nit nag mën na dund daa iman ci wàllu ruux ruuxaniya mooy yàlla gërëm bu ko yàlla xasee ba gërëm daa iman du faatu ndax kuy dund ci yàlla deewul mooy radiyallahu anhu wa radu anhu dalika liman xasiya rabba mais bépp soxla bu nit am bu demee ci alxuraan mën na faju xam nga masalan am na lu xew léegi muy ndaw ñu bari ngi jóg pour tukki te te te la koy def mi ngi ci biir alxuraan te man duma duma koy junj jàll damay wax lu ma bëggul wax it kenn mënu forcé ba wax ko ndax niñ ma ni ma tiwaawan yaree la gis nga baatu laa xawla wala quwwata illa billah waxuma aliyil azim bokk ci mais la hawla wala quwata rek illa billah ngay yem nga di ko zikkar soixante fois mais ci condition mooy da ngay wéet nga tëju ñaata point cardinal moo am du ñeent xaw ma le nord la sud l'est et l'ouest muy penku soow bët gànnaar bët saalum da ngay tàmbali jublu penku ginnaaw bi nga julee ñaar rakka ba pare jàng ci fatiha ak saar nit ki dafay jublu penku jàng laa xawla wala quwata illa billah soixante-dix fois dem soowu tourné jàngaat laa xawla wala quwata illa billah tourné ci côté droitam jàngaat ko laa xawla wala quwata illa billah soixante-dix dem ci côté gauche am def noonu soo ko dellu siwaat ci penku bi tëj ñaan gi ak salaatul fatiha wala salaatu bu man mais mi ngi koy ubbee faatixa ak ñetti salaatu ala nabi bu man soo ko commencé la hawla wala quwwata illa billah lii ku ci sax ay fan yàlla mën naa yombal sa sa tukki mais nag li may digga réew mi en particulier sénégalais yi bari na lu nu gàllankoor mooy wax ak iñaan ñu bari ci réew mi cat moo leen téye xam nga ali ñëpp ngi daw jëm ci di moytu rab te cat moo gën a garaaw rab. cat nan la gën a nan parce que souvent da ngay dégg ay nit dañ naan euh, kii cat a ko topp wala kii rab a ko topp mais boo ma cat moo gën a garaaw euh, rab euh, ci benn côté gars yi à chaque fois ñi ñi rab jàpp la ñuy gën a ragal que cat. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni. bu amoon lu doon gàllankoor ndogu ndogalu yàlla mu ne cat lay doon mu ne cat lay doon waxul rab parce que moom amoon na rab am na ko ku dem ci téere bi ñu jàngalee xariin muy àndandoo nee na man yonent bi am naa xariin mais duma lor kon am na xariin buy lor mais léegi ni loolu lan la ñuy def ba xam ko maanaam diggante ràññee rab ak cat tey boo ma ko doon définir lan la. xam nga rab ak cat ñoo xaw a niroo nit ñi nit ñi def ci nit ñoo xaw a niroo màndarga mais cat du indi énervement mais dana indi tayeel mais nit ki bu demee ba gis na day jékki-jékki merte kenn defu ko dara wala mu bëgg isolement kooku bàyyi ko xel mën naa am àndandoo parce que àndandoo bi day bëgg di nek ak mom kessé de manam da koy fiire mais li chat dangereux moy chat dina gàtt dina wàññi fanu nit te rab mënu ko cat dina gàllankoor wërsëgu nit rabit dina ko def mais ni koy cati defee moo ëpp doole té rap pour mu jekku nit dëgg il faut que nit ki bari chat té man li ma wax dama né la yonent bi néna xam nga manam waxaguma la diw néna dama né la yonent bi néna kon lu wér la te moom nee na moom amoon na xarin mu wax saxaabe ne mais sam man bi ma am am naa chance sama xarin du ma lor lii nag téere bi jàngale xarin ku ci dem di ko ca di ko ca fekk téere boobu lañ lay wax ne bu rab yi doon am dëkk Australie la ñuy dëkk xam nga lan moo tax foofu moo am xeetu jaan yu amul ci àddina dañ lay mbëkk nga cancer mi ngi ci téere bi seen dangar dafa bari ba dañu silmaxa duñu mat dañuy mbëkk ku dem ci téré bi ding ko ci fekk euh, mbokk yi yene ngi suivre émission euh, bi nga xam si mom modi di euh, njariñ ak alxu njariñu alxuraan fi ci almunawir media ñu ci and ak serigne mam Ousmane Diop ma fatali len adresse am mi ngi nonu ci suufu écran bi ay numéro téléphone am tamit wala numéro téléphone am di ngeen ko gis euh serigne mam Ousmane da nga wax wax bu am solo ma bëgg tamit ñu dess fa ci li nga wax légui ci walu rap ak li nga xam si moom moo di cet tey secret yi nga xam si moo am ci biir alxuraan tey su ma la doon laaj tey par exemple koo xam si cat da ko topp wala mu am rab yan njariñ wala boog yan secret la ñuy utiliser ci alxuraan ba loolu euh, dañ ci moom. alxuraan aaya yëpp man na ko. amul yan aay yu gën a gaaw nag. waaw man xam nga man suma suma fi toogee fii jàpp benn aaye eh, di ko sikaral ni rek ku cat japp est-ce que est-ce que dina jall amul yu gën a gaaw APS beeg euh, ligne nationale bi. nag aaya yëpp a ko man mooy yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ni alxuraan loo ci jël loo ci yéene loolu am ca moo tax ma ne lépp a ko man léegi nag dafa am coow lu am mooy ñi taxaw naan kenn du sangoo alxuraan parce que nangam nangam nangam nangam loolu moom taxu noo jóg. mais cat niñ ko daan fajee ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn mënu ko fajee noonu ci biir jamono. tax xanaa boobaak léegi du benn. du benn. alxuraan ja amoon ak léegi te dul benn wala. moom laa lay wax bu njëkk bu nit catoo nit day ñaan diw maa ko catu ci jamono yonent bi. loolu moom amatul fi. muy benn dal na saxaaba ñaari saxaaba. mu daanu kenn ki daanu yooyu fekk da sangu am ko ko romb gis digg naa ko ni ko yow nekk sa yaram bi nii la sete mu daanu mel ni ko ku crise d'épilepsie ñu wax ko seydal juddi mu woolu ko ne da ngeen dem ngeen dagg yi dagg wewu tànk yi laal ci catu làmmiñ bi ak catu jë bi ak catu bakkan bi ngeen def ko ci ndox ak yeneen cër yu mu tudd sax mais télé la mu ne ngeen def ko ci ndox jox ko ki mu catu mu sangoo ko jug taxaw Alioune demal def ko ci réew mi fii chaque jour yow ñaat nit a lay catu keneen ak keneen ñaat nit a koy catu léegi mag ñi ne kon nañ dem ci alxuraan pour faj ko bi ñu xoolee ñu gis ne falaxi wannaasi mën nan ko wa in yakadu alladina kafaru moo ci ëpp bay na ci côté boobu ñëpp dóor nañ ko affaire cat pourtant day faj impuissance sexuelle ah lu wér laa la wax wa in yakaadu alladina kafaru la yasliquunaka bi absaarihim lamma samiu aldicre wa yaquluuna innahu la majnunun Ou ma huwa illa dicrun lil alamin Nous bari n'y ngi ko dakkantal ci cat dëgg du ci am du am mais day fach impuissance sexuelle falaxeek nasi. yàlla moo ouvertement Qui wax ak kiy wax di fas waaw Alioune fu fu yàlla bàyyee ñuy njabar yonent bi ñun ful jëm te loolu li ci yàlla jublu du yonent bi amul gàllaaj ndax yàlla mooy gàllaaj yonent bi mais da ngeen il faut ñu xam ne seydil wujudi mooy li yàlla jàngale nit ñi nu ñu war a dundee moo tax mu ne leen njabar am na te xoolal ironie di sort wala njàngalewu yàlla xikmawu yàlla mikail lan la malaaka la Mikaayil xamul woon six Mikaayil xamu lan mooy njabar il a mu dara rasulillahi Jibril ñëw ak Mikaayil mu ne ko jàngal ci tànk yi naasi ma jàng ci bopp bi falaqi loolu mocc la mu ne ko waay yow sa waa ji lu ko dal mu ne ko lii mooy sixar dañ ko njabar mais njabar biñ ko def mooy dëppoog vodou xam nga gis nga gis nga gis nga wax dafa yomb mais xam-xam bu wér dafa gën a wóor loolu mooy dëppoog vodu ndax dañ koo jël représenté ko ci benn jëmm ndax naa Ali bi mu bi mu tiimee jëmm ji ci biir teen bi dafa ne comme yonent jëmm jooj nag lañ jël wut wa fàllay di jat di takk yeew Seydou wuju jam ci ay puso pour mu téye cëri te jàpp nako ko ba muy jaawale ay soxnam nama yàlla bal mais ki mu jàpp di mu du muhammad rasulullah muhammad ibn abdullah mais lolou benen koku wa koku benen débat la bim ko jappé nak yàlla na yenen yàlla jox jibril ñaari sar yo ñenen dem len ngeen jox ko julliti qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas falaq man nga ko déggé mo rax mag ñi dan gis nga mag ñi bu ñuy wax rek alxuraan la dañ naan nit ki du génn waxtu timis loolu fa falaqi mooy waxtu wi nga xam ne guddi gi mi ngi dugg bëccëg gi dem waxtu woo ñu en ñoom ñaar dañuy xëccoo moo tax kii nanguwul dem ngir bëgg toog ak julliti kii nangu bëgg ñëw ngir fekkee jullit yi. waxtu woo waxtu danger la pour génn. ëpp naa génn xanaa ngay dem jàkk ja. bu dul loolu wutal fóol lalu xam nga loolu moo tax demaata ci téere bii ma a wax waxtu woowu jinne yi bu ñu noddee dañuy daw ji diggu ci diggante wewu nit ñi diggante wee bi ak yàpp bi ak kii bi der bi foofu lañuy ñuy jéem a làqatu parce que jinne du du du comme matière yi ñu xam yàlla tàkk-tàkk leneen leen bindee saxaar waaw saxaar xaj na ci ci loxo wala xaju ci xam nga xaj na ci saxaar leneen bindee mais saxaar bu tàkkul loolu la yàlla matière boobu la bindee jinne yi benn kaas mën nga mën nga ci fekk ay milliards de jinne te ñoo ëpp nit ñi fuuf ndax buñ la wanee àllaaxira atte bi atte bi nit ñi buñ taxawee jinne yee leen di wër malaaka yi ñëw wëraat jinne yi xam nga liw malaaka yi ñaata lañu pepp suuf ci kaw àddina bu nekk bu yàlla yónni woon malaaka ne ku nekk indil ma benn pepp suuf te ku indi bul dellu fépp suufu àddina yi jeex te malaaka yi dul am ñooy ëpp ñi am tey na waar euh, macha jërëjëf euh, sëriñ maam Ousmane ni nga ko waxee am na solo euh, mbokk yi ba léegi rek ñu ngi ci njariñu alxuraan fii ci almunawir média ànd ceeg sëriñ maam Ousmane sëriñ maam Ousmane damay desaat ci fi ñu nekkoon ba léegi ndax Euh, da nga laal cas boo xam ne si dafa dafa dafa dafa am importance mu jëm ci wàllu secret yi nga wax léegi ci wàllu tukki man dama bëgg ñu desaat ci euh, tey ni ma ko waxee est-ce que ñi nga xam ne si xëy na seen xel mi ngi ci tukki bëgg cee dem xëy na gars yi nañ dugg fu nekk des fois doo xam affaire yi lan moo koy téye euh, tey dama la dama lay laaj rek fekkoon am na ñoo xam dañoo taxaw xëy na pour bëgg dem tukki est-ce que maanaam am na fu ñu mën a jaar par exemple ñëw ci maam Ousmane. mu am fu mu jaar ak ñom ba ba seen aajo bo mëna faju d'abord li nit ñi wara geustu moy est ce ñom war nañ tukki du ñepp wara tukki tukki mi ngi yom ci ki nga xamne tabi'am ngelaw la tukki yom nako mais nit ki fekke warul tukki mu bëgg tukki day dafay sonal bopam té lool yépp nit ki ci ki nga jëm war na ko xam. Ah, mais ci manam par exemple ku seeti maam Ousmane mu xamni ni nga ko waxee léegi tabi'am dëppoo na ak tukki ak dëppool ak tukki te loolu tamit lu am solo la bari na nit ñëw tàllal la passeport am wala tàllal la ay loxoom ne la ñaanal ma te xooluñu ba xam tabiyaam dëppoo na ak tukki wala dëppoowul ak moom mais nag nañu bàyyi benn jumlatul irtiraaj muy entre parenthèse am na ñoo xam ni quelque que soit alpha soxla booy leen wax mu faju ndax yàlla ruus na leen ku mel ni sëriñ Mansour si borom daara ji nit danañu ni ko damaa bëgg tukki mu ne ko demal wala nga jox ko passeport mu téye ne la am demal sëñ Abdou Aziz Al Amin def na ko sunu kanam téye passeport rek ne ko waaye yàlla baax na demal kooku xam naa ko parce que ñooñu dañoo dominer temps bi kooku bokkul mais li may wax mooy ñun niveau bi ñu tolloon ñu bañ dugg ci beneen niveau mais ñu souligner que niveau bee am na ñu xam loolu ndax am na jàmm yoo xam ni lu dugg seen nopp mu faju ku seral seen xol sa aj Aja faju donte waxoo leen soxla ba li tax lalu mooy sang li wax ci ben gi mooy dañoo takkook yàlla mais tukki lu ñuy lu luni xool la ba noppi mook tak soxnaa yam kenn du dugg ci jigéen te listixaaruloo loko te li ndigalu yonent bi la xam nga man lan sama problème ci réew mi nan la ñuy mënee gëmee ndigalu nit te nanguwuñu gëm ndigalu seydil wujudi mu ne mone julit lu muy def la wax lumi lu muy dugg na xool ndax dina ko jig wala jigu ko bu ko jigul mu bàyyi ko bu ko jigee mu ñànc te noppi moo ko wax de mu ne sama njaboot li leen jig te ñu mën ko réussir mooy la ñuy mbébét buñ koy wax n'importe kii waaw ñun ku tukki ñëpp ko yëg ñëpp ko yëg mënul dox réew moo xam ne dañ lay catu suba ba ngoon loo dugg mais dafa yàqu donc nit ki tukkeem da koy waaj tukki lu ñuy waaj la mag ñi dañu am secret woo xam ni dañ la koy defal boo bëggee tukki dañ la koy defal pour tukki bi mën a man mën a nekk buñ ko defee ba pare ba mu wóor na yàlla nangu ne leen pour tukki bi mën a nekk ñu soog la ñaanal pour tukki bi nekk bu la ñaanalee ba tukki bi am ñu ñaanal la yoon wi neex mais ñun léegi nañ wax ne dëgg rek gars yi li yëpp dañ koy wàcc te bëgg am teranga te tukki taxut a am teranga parce que boo ko waajul du mën a sotti. waajal lépp lañ war a wàcc gis nga. jullit du bàyyi boppam gis nga di naan ndox naan ndox sa biir kër te waxoo bismillahi rahmaani rahim mën nga ci loru coroxaan warul nit koo gis mu naan coroxaan tuddul yàlla ba muy naan nit koo gis mu lekk fot ba muy tibb di lekk tuddul yàlla sëriñ Cheikh Tidiane Sy lañ jële mu ni bismillahi rahmaani rahim mu ne sax bare naa bismillahi nga di ko toogee jiital sa loxo ndeyjoor bu fa bomb nekkoon du tàkk parce que dafa dafa waajal boppam. am na solo kon gars yi waaj leen bu baax a baax comme ni ko Serigne Maam Ousmane waxee Serigne Maam Ousmane xam naa waxtu wi xëccu na jëm ci jeex mais dañuy damay ñëw ci benn affaire tamit parce que ni nga wax am na solo. mais nit ñi tamit di fexe di ràññee wala boog di def li nga xam si dañuy mucc ci ñaari baat yi nga wax léegi muy cat ak jinne tey su su ma la doon laaj xam naa mooy laaj bu mujj bi euh, tey nan nit nan la mën a def ba mucc ci yooyu maanaam ci cat yeeg euh, wàllu rab yeeg yooyu nan la nit mën a def ba mucc ci ah fa tabaarakallaa ba ci balaa ma ci tontu ma niwu ñaar muy waa daayiratu latif ak sama tayeeru bopp sama tajoor di sama xarit muy njaase géey maître man nee naa ko nag maître tailleur Ndiasse Guèye yal na ko yàlla jàppale ñaar yooyu pour mucc ci muy falaxi xam nga bu ko wax falax ak naas da koy xeeb te pourtant moom moo faj yonent bi ce waa lu faj yonent ñun buñ ko bay Ibou Sakho maam Ibou Sakho nee na mësul dem ci médecin mu ne moom lu ko dal mu jël kaas jàng faloxi naas naas yi ëf ci naan li indi loolu mooy da koo gëm te ñun gëmuñu ko fi mu ne nii ku ma ne woon del jàng falaxi naasi treize fois subaak ngoon danga mucc ci cat da mucc ci rab ak leneen lu yàlla bind te muy lor parce que yàllaa wax ne lépp lu mu bind dafay lor qul a'uudu bi falaqi min sharri maa xalaqa na ngeen muslu ci loo xam ni man yàlla maa ko bind te muy lor kon nañ làqu ci moom aunzu suñ làqoo ci yàlla rek lépp luy lor te yàlla war a jóge ci lu yàlla bind boo jàng falax ak naa si treize fois suba ak ngoon yàlla mën na la dogal dootu la lor mais à une condition masalan tey ki déglu soo ko déglu waxtaan wi tey ba ci ginnaaw il faut mu dindi ko ba pare soo ko def dog bi rek def déedéet day fexe dem ci ku ku yàlla may lam ko laaj na ko ko jox génn ci moom mu bindal ko luy raxas yaramam ba mu set xam nga man lu ma jaaxal ku xëy sangu dugg ci duus bi sangu lu tax jullit bu xëyee du sango alxuraan ku dugg ci du sangu ba pare demal wut sa cummikaay nga sangu loolu dinaa ci ñëwaat xam naa ci beneen émission incha allah Euh, ni nga ko waxee ci njariñ ak alxuraan mbokk yi topp leen émission bi ni ma leen ko waxee woon lépp loo xam ne si njariñ la nekk ci biir alxuraan incha allah épisode par épisode dinañ ci ñëw ak yéen sëriñ xam naa waxtu wi xëccu na jëm ci jeex dama lay bàyyee nga tàggatoog euh, mbokk yi ñu doon seetaan ci almunawir média xam naa ñu joxante waat dig daje incha allah beneen jataay incha allah. waaw li ñuy tëjee mooy ñaan yàlla gudd fan gu ànd ak wér ak aajo yu faju dolli ci nag na nit ñi fexe togg ay ñam ñoom ak seet njaboot ak nit ñi ñu bokk ko lekk ñu def ko sarax te ku mën jug seeti sa mbokk nga jug seeti ko dem seeti ko rek ñibbisi buñ ko defee dina am lu bari loolu lu mu defaraat ci réew mi waaw dara nag taxul ñu wax ko du dara du lu ñu gis du dara ndax dëkk bi dafa doy waar mais buñ ko defee dina gën a baax ci réew mi mooy na nit ñi togg ay ñam ñoom ak seen njaboot ak ñañ ko yàlla maanaam ñañ ko comme buñ ko toggee nii ñoom benn ndab bi ñu bokk ak seen njaboot yeneen ndab yi ñu génne ko nit ñi barkeelu ca ñu def ko eh, sarax sunu paree nag loolu ku nekk jugil jugal dem seeti sa mbokk ku ci amit kilifa nga dem ziyaara ji ko nañ ko def fii ay weer dina am lu bari lu yàlla seral ci réew mi te nag ñu bokk nañu fonk baatu istigfaar jot na istigfaar jot na kilifa yi war a dem nag dañoo war a dem nañu bàyyi naan nangam déedéet duñ fi nekk éternellement nañu bàyyi tappale ku dund quatre-vingt-dix ans xanaa sax war nga koo yërëm ñi dem ñëpp ay mag lañu liggéey nañu ba noppi ñun ñoo war a jug nag appliquer liñ ñu fi bàyyil te ñaan ñun gudd fan ñaan wér ak réussir liñ ñu fi bàyyil mais boo waxee rek ñu naan noo ay catastrophe du benn catastrophe jàngale nañu yar nañu ñun ñëpp ku nekk sa kilifa war na la yoon ba nañ jaar ci yoon wa loolu muy ful la loolu mooy fayda te ñi fi desandi ñaan leen gudd fan te bu nu gëstoo gis nu mais daal yii nañ ko fonk muy sarax si togg ay ñam lii nga bokkook sa njaboot ngeen lekk li ci des ngi ñu génne ko saraxe sunu paree nag ku ci nekk boo mënee xëy nga dem doxi mbokk nga xëy dem te sax nañ ko ca boole ca la bokk dem xëy dem doxi mbokk ziyaarante baalonte ak te commencé wut ku ci nekk dogu istixfaar il a 500 wala lu ko ëpp mais bu mu gën tuuti 500 ñu tee ko fii ak weer ñu xool fii ak réew mi fi mu jëm ndax am na fuñ jëm xam nga am na lu ñuy waaj am na fuñ jëm nañu wajal suñu bopp balaa nu faa àgg wasalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf euh, sëriñ maam Ousmane Diop ñu ngi koy santaat bu baax di ko gërëm di gërëm tamit mbokk yi nga xam si ñu ngi ñu doon euh, seetaan ci almunawir média yaakaar naa dégg ngeen waxtaan wi kenn ku nekk ci yéen di nga mën a jàngat waxtaan wi la yi nga xam ne si tamit euh, njariñ la ñu jàppe ko bu baax a baax digle yi nga xam si tamit sëriñ mam Ousmane wax na ko ñu jëm ci taxaw bu baax a baax ñu ngi sant bu baax di gërëm mboolem équipe technique bi nga xam ne si moom lañ àndaloon Xaasim Seck gërëm tamit ki nga xam si moom moo di Modou Diop Alioune Guèye moo nekkoon ci présentation bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen joxat dig daje incha allah ci beneen émission njariñ ak alxuraan fii ci Al Mounawir Média mbokk yi jaa ngeen jëf.